glory glory man united sama gars yi ziar naa leen donc ñu ñëw ci suñu épisode cinq six je sais ci suñu podcast yi ñi def pour suñu match contre PSG donc mu nekkoon premier match de poule Ligue des Champions phase de poule yi ñu bokk nag ci poule bu compliqué puisque poule bi dañ koy partagé ak PSG dañu koy partagé ak. Euh, Leipzig dañu koy partagé ak Istanbul Başakşehir PSG moo nekkoon dernier finaliste édition bu mujj bi euh, Leipzig nekk tamit euh, demi-finaliste ci édition bu mujj bi donc mu nekk poule bu compliqué suñu premier match bi aussi waroon nekk match bu compliqué puisque dañu waroon déplacé wu au Parc des Princes euh, pour affronter ki nga xamante ni mooy favori poule bi d'autant plus que ñun ci suñu début de saison bi dañu def ay performances yoo xamante ni performance yu moom la wax yu médiocre la surtout les trois premiers matchs contre Newcastle sax on a fait une performance correcte mais pour les autres moom dañu def ay performance yoo xamante ni euh, c'est pas digne de Manchester United donc euh, en plus que ñu am aussi des blessés en défense euh, ku mel ni Eric Bailly wala Harry Maguire ñu waroon retrouver en défense benn joueur boo xamante ni il est resté dix mois sans joue donc dix mois d'absence muy Alex Twenzebe bii waroon nekk premier match am aussi mu waroon def face à benn trio boo xam ne bokk na ci meilleur trio dro bi muy Mbappé Neymar Di Maria donc yooyu yëpp euh, nekkoon loo xamante ni tiital nañu en plus que équipe bi dañu gisoon ne semaine yi yëpp ñu ngi ko doon wax équipe la boo xamante ni équipe paresseuse la équipe la boo xamante ni ils vont pas au pressing équipe la boo xamante ni seen jeu d manqué intensité équipe boo xamante ni le positionnement est mal fait le repli défensif est mal fait donc équipe la boo xam ne ils font pas les efforts donc boo boole loolu yëpp mu nekkoon li nga xamante ni tiitaloon nañu avant match bi mais bi ñu ñëwee ci match bi donc match bi on l'a gagné deux buts donc euh, match la woon à l'extérieur donc euh, ñu gis ne nag équipe bi lépp li ñu ko doon critiquer dañ ko corriger parce que dañu gis benn équipe Manchester boo xam ne ils faisaient les courses ensemble dañu doon pressing ensemble donc euh, il y avait beaucoup d'intensité dans le ñu gis équipe boo xamante ni dañu wane ne ñoom ñoo gën a bëgg trois points dañu gis benn équipe bu am eng ñu gis benn équipe boo xam ne ils font les efforts collectivement gis équipe boo xam ne dañu solidaire donc positionnement bi correct donc lépp li ñu leen doon critiquer dañu gis ne dañ ko corriger ci match bi nii donc ñu def benn performance boo xam ne performance triple XL la donc parce que match là on l'a gagné et la victoire elle est méritée parce que ko dóoroon par plus d'un sax kenn du wax. puisque Marcus Rashford il s'est créé de nombreuses occasions en deuxième période finition bi rek moo xaw on manqué mais su fekkoonte ne am na finition bu bu baax donc on allait gagner par plus d'un but d'écart euh, ñu gis tamit ne Manchester dañu ñëw wane ne dañu bëgg victoire bi parce que la victoire on est allé la chercher parce qu'en deuxième période même si on était à l'extérieur on s'est créé les meilleures occasions dañu bousculer Paris acculer ko ba dugal suñu deux suñu deuxième but bi ci fin ci fin temps bi pratiquement donc mu nekk match boo xamante ni c'était plaisant à voir te mu nekk performance boo xamante ni on s'attend à ce que l'équipe reproduise ko si semaine yi di ñëw donc journée après journée ñuy def même performance parce que bu performance boo xam dañ ko war a def rek parce que c'est un gros match c'est un gros match les caméras sont braquées sur United tout ça dañ ko war a def match après match bu ko defee ñu am des performance yu constantes am ay résultats yu constantes bu ko defee ñu am saison bu constante bu saison bi jeexee on sera benn saison positive la ñuy def donc on pourra terminer la saison avec des trophées parce que match bi bu ñu ko joué match bi ñu joué contre Paris bu ñu ko joué tout au de la saison on finit champion loolu moom duñ ci weerante <laughs> on fini champion wala balaa bu ñu bu ñu terminé wul champion sax on termine dans le top 3 donc euh, vraiment chapeau aux joueurs. mais également chapeau au coach parce que coach bi il a mis les bons hommes il a mis le bon système franchement chapeau à lui donc daan ci ñëwaat donc pour wax un peu ci joueurs yi donc on va citer quelques exemples mais joueurs yi moom les onze ak les remplaçants ils ont tous été bons équipe bi ils ont tous été bons amul kenn koo xamante ni mën nga ko ne non kii marché wul doxul non non ils on tous été bons Rashford il a raté des occasions. mais il s'est créé les occasions Rache dafa def appel yi Rache il a couru pratiquement tout le match il s'est créé les occasions le deuxième but il a créé voilà mi ngi noonu Rache il est allé chercher la victoire moom ku mel ni Martial peut-être cadré wul tir yi il a mis un contre son camp mais Martial il nous a beaucoup aidé dans le match et boo xamante ni xam nañ ne du profil am ko mooy jeu de dos bi jeu de pivot bi Martial quand l'équipe était bas bu ñu génnee bal bi. da ko doon doon def jeu de dos bi téye bal bi protéger ko ba équipe bi génn permettre à l' équipe de sortir correctement permettre à nos milieux de monter mu jox leen bal bi permettre équipe bi ñu daal di nooyi et loolu ñun Martial xamee wuñ ko pourtant il a fait les efforts nécessaires Martial au pressing également il a fait les efforts nécessaires da doon daw match bi yëpp di déclencher pressing bi et vraiment équipe bi moom comme ni ma ko waxee onze yi peut-être dañuy wax quelques joueurs rek yoo xamante ni on peut pas en fait on doit parler de performance mais ils ont tous été bons que ce soit Dexia ñoom ñëpp Lindelof ils ont tous été bons maintenant on va parler de deux personnes wala trois personnes donc bi ci njëkk mooy Alex Tuanzebe franchement franchement chapeau à lui parce que Alex Tuanzebe dix mois d'absence la def il revenait de blessure c'était son premier match big match contre Paris Saint-Germain équipe bi nga xamante ni il est classé deuxième ci édition daaw bi. donc mu ñëw war a taseeg benn trio bi nga xam ne bokk na ci meilleur trio duro bi muy Neymar Mbappé Di Maria donc mais il a géré le match sans pression parce que Alex Twenzebe ñun xam nañ ko xam nañ ses qualités ses qualités ses qualités parce que Alex Twenzebe on le suit depuis l' académie suivre nañ sa saison à Aston Villa xam nañ ne am na qualité yi man xam na personnellement je m'attendais à ce qu'il fasse un bon match mais pas que mu def match bu fantastique bii mu def parce que il revenait woon rythme et tout ça c'était son premier match mais il a fait une performance triple XL donc wane ne liñ doon xaar ci moom yëpp donc voilà se confirmer mu nekk joueur boo xamante ni bu blessé wul jàpp nañ ne il va nous apporter beaucoup beaucoup beaucoup stabilité bi ñu doon wër moom mun nañu ko apporter bu fekkente ne ne physiquement il est bien le reste de la saison donc comme ni ko Giggs waxee rek donc c'est un joueur avec des qualités énormes un QI football boo xamante ni il est mi ngi wax ne moom ak Van Gaal sax dañ doon préféré di ko jouer loo dans l'axe parce que euh, déggal dans euh, au niveau du milieu parce que on l'a vu déjà à Manchester mu joué fa 6 sous Van Gaal gis nañ ko aussi mu joué latéral également gis nañ ko mu joué défense centrale même si ñun saison bi ñu ko suivre nag euh, quand il était en prêt à Aston Villa axe la ko joué ba mu jeex et il a montré des qualités yi nga xamante ni ñun jàpp nañ ne suñu défenseurs yi parce que ñun avant sax daaw ñu ngi ko doon wax avant saison bi commencé ñu ngi doon wax ne Alex Touanzebe bu ñëwee il est numéro 3 direct sur défenseurs yi et avec des performances il passe numéro 2 tout le monde s'attendait à ce que mu ñëw bousculer hiérarchie bi malheureusement il s'était blessé mais là sa première prestation après blessure moom macha allah rien à dire exceptionnel exceptionnel donc euh, euh, bu blessé wul on s'attend à ce que mu multiplier genre prestation yi et apporter ñu plus de stabilité défense bi donc beneen joueur bi mooy euh, Fred Fred moom depuis Mm, depuis mu installé wu ci onze bi donc mooy année dernière avec la blessure de Paul Pogba et tout ça donc match après match il monte en puissance des prestations triple XL wax nañ ko ba sonn sur Twitter wax nañ ko ba sonn ci groupe bi on ne comprend pas pourquoi Fred sort du 11 pourquoi il est sorti du 11 sax la ñuy wax ndax avec le retour de Paul Pogba de blessure donc daaw mooy après restart bi tout donc on n'avait pas compris lu tax mu génn onze bi parce que Fred li mu doon apporter défensivement keneen mu mënuñ ko apporter donc mu nekk joueur boo xamante ni comme ni ñu koy waxee chaque fois warul génn onze bi joueur la boo xam ne il doit enchaîner les matchs il doit monter en parce que Fred joueur la boo xamante ni il nous permet benn benn benn benn sécurité défensive boobu daf ñu koy permettre mais tamit sur les sorties de balle peut-être am na quelques déchets loolu moom loolu moom duñ ko bañ loolu duñ ko bañ. mais il s'améliore de jour en jour donc benn instant nag bu fekkente ne ne dafay dugg ci onze bi génnaal onze bi donc mooy loolu donc amélioration bi ñuy xaar ci moom mu koy def match après match dafay des parce que bu tayee mi ngi ci onze bi bu yàggee mu génnaat bi on s'attend à ce ñu bàyyi ko mu enchaîner match yi il doit plus sortir du il a montré que à may ko chance am que moom il ci bi beneen joueur bi mooy Scott McTominay moom tamit également on s'attend a le voir souvent ci onze bi parce que joueur la boo xamante ni son duo avec Fred dañuy permettre benn stabilité défensive bi et il permet en même temps comme ni ko coach bi bëggee à ce Bruno yenn tâche défensive yi wàcc

coach bi dañ doon mettre ñoom ñaar sur le banc génne Pogba ak Bruno Fernandes mais ñu ñaar boo leen mettre sans un bon meneur de jeu ñoom du ñu mën a def tara parce que ñoom ils sont bons à la récupération ils sont bons pour faire monter la mais pour dernière passe bi ça du seen fort donc on s'attend à ce que coach bi di leen mettre avec Bruno Fernandes bu ko defee ñu am benn stabilité défensive am aussi benn stabilité offensive Euh, donc ñetti joueurs yooyu lañ bëggoon wax rek brièvement ci seeni prestation et tout également Alex Telles premier match donc moom il a été convaincant donc jàpp nañ ne moom bu amee benn ku mel ni Cavani benn attaquant boo xamante ni dafay présent dans la surface on va se créer beaucoup d'occasions parce que joueur la boo xamante ni il prend son couloir day percuter et il centre beaucoup et malheureusement avec Martial il est pas souvent présent dans la surface et aussi yooyu ci surface bi Martial da donc avec Cavani on s'attend bu gis vraiment li nga xamante ni mooy potentiel wu Alex teles bi euh, bu ñu ñëwee nag ci deuxième partie bi dañuy wax ci coach bi donc coach bi moom chapeau à lui sur ce match rien à dire les semaines précédentes critiqué nañ ko et c'était justifié parce qu'il mettait par les bons hommes et des fois on trouvait qu'il mettait pas le bon système mais surtout ñun ci ci ci onze bi dañ ko doon critiquer et sur ce match là man personnellement benn joueur la dugal boo xam ne xaar ma ko woon ci onze bi muy Dexeya et Dexeya a fait un bon match homme du match parce que je m'attendais à ce qu'il mette Dean pour équilibrer nombre de matchs entre les deux mais il a mis Dexeya et Dexeya a fait un excellent match il a déjà Dexeya sax mooy homme du match donc rien à dire et sur le 11 vraiment rien à dire parce qu'on s'attendait à ce que Pogba soit sur le banc avant match wax nañ ko et je bi Pogba bu joué woon dañuy gagné e ça moom mun naa ci parier bu ñu tegoon 40 matchs d'affilée Pogba contre PSG Pogba titulaire 40 yi boo deful nang demee dañuy gagné 40 yëpp. parce que match bi on savait qu'on allait procéder par contre et que il fallait coûte que coûte faire beaucoup de beaucoup d'efforts défensifs Pogba mënul repli défensif et là on l'a dit à maintes reprises coach bi dañu ko doon forcer te moom moo doon déséquilibré suñu. système défensif parce qu'il fait pas les efforts défensifs parce que boo demee ba joueur bi nga xamante ni tu joues en double tampon mais c'est ton meneur de jeu Bruno Fernandes bu repli jotee moom mooy moom mooy plus bas que yow donc y a problème y a problème loolu moo taxoon ñun on avait dit que bu Pogba toogee ci bi on a nos chances de gagner ce match et ça s'est parce que Pogba en super sub il apporte quelque chose puisque super sub bu duggee fekk équipe bi de faire ce ce travail en défense. Donc sur ce match-là, bi loolu l'a adopté et c'était un choix payant puisqu'on a contrôlé le match défensivement. Paris, ils sont créés des, des opportunités, mais à chaque fois, ils se heurtaient à un mur. Donc, euh, positionnement, bi positionnement c'était fait correctement. Les replis défensifs, c'était fait correctement parce que duo bi McDo Fred, ñom dañuy harceler porteurs adverses yi, ils se ménagent pas, dañuy daw tout le temps. ils font les efforts défensifs nécessaires et aussi c'est des gratteurs de ballon dañuy c'est pas le cas de Paul Pogba donc moo tax ñu jàpp nañ ne Pogba donc moom toog bi mu toog ci banc bi sax moo ñu permettre ñu gagner match bi et man je le vois comme un super sub donc jusqu'à preuve du contraire coach bi il doit le mettre sur le banc jusqu'à ce que mu wane ne moom il a xam nga il mérite sa place dans le onze parce que pour faire plaisir à un joueur bu mu tax ñu déséquilibrer aussi suñu système défensif puisque nos trois premiers matchs en en en première ligue na ko il a voulu faire plaisir à Paul Pogba et avec des performances yi nga xamante ni des matchs yi nga xamante ni moom c'est plus à répéter parce que genre match yi répété nañ ko mooy on finit dixième donc euh, man je m'attends ce que coach bi di ko ménager donc xool ba xam il va monter en puissance sinon man je le vois man moom personnellement le vois comme un super sub

y a Fred dedans voilà donc euh, léegi bu ñëwaatee nag ci système de jeu bi ñu adopté moom chapeau à lui parce que vraiment le 3-5-2 bi mu teg ça gênait les Parisiens et en même temps en deuxième période bi ñu gisee ne on était égalité et qu'on voulait aller chercher les trois points il a fait un changement bi nga xamante ni moo basculé match bi parce qu'il est passé en 4-3-3 en mettant Paul Pogba et en gardant nag Maguito ak Fred donc Pogba il a apporté offensivement puisque but bi il a servi Rashford dans une position confortable pour ñu dugal suñu deuxième but gagner les trois points et vraiment chapeau au coach match bi moom rien à dire il a fait les bons choix et on a gagné ce match là et vraiment donc ñu ngi koy xaar tamit ci suñu prochaine échéance yi puisque ñun on a de gros matchs yu à venir am nañ comme ni ñu ko waxee euh, Chelsea prochaine journée Premier League ensuite Leipzig en Champions League Arsenal euh, Istanbul Başakşehir et Everton mi nga xamante ni moo leader Premier League bi donc on a de gros matchs à venir et on s'attend à ce que le coach également euh, puisse mettre puisse prendre les bonnes décisions comme ni nga ko defee contre et moom de son côté il aura des des des, il aura en fait euh, ay ay ay dina am dina am ay renfort parce que ku mel ni Cavani il sera opérationnel ku mel ni par exemple euh, ku mel ni par exemple Eric. Eric Bailly on s'attend à ce qu'il soit opérationnel fii quatre semaines mais ku mel ni Harry Maguire on s'attend à ce qu'il soit opérationnel euh, rapidement ku mel ni Greenwood on a eu l'information que il pas blessé mais plutôt euh, que dañ koy sanctionner pour mauvais comportement j'espère que ce sera réglé parce que joueur la boo xamante ne également on peut on doit compter sur lui xam nga ci saison bi li ci des donc vraiment pour le moment euh, match bi kon donc wan nañu ne Manchester ils peuvent ils peuvent aller chercher première place yi donc que ce soit en première ligue que ce soit en ligue des champions parce que ils ont ils ont les joueurs pour maintenant reste à prendre les bonnes décisions et à mettre les bons hommes sur le terrain donc je pense que gars yi mun nañ ko à la prochaine.